maa ngi tudd nu Faye maa ngi dëkk rue 27 angle 6 Médina. Ousseynou tey ñu ñëw fi nga xamante ne moo di sa place nga defaroon ko pour indi fi say xar ñu gis ne dañu dagg place bi daal di dindi mool yi ak yooyu lan moo waxal jafe-jafe boobu parce que gis nañ ne Médina ñu bëri ñu ngi teg seen bunt kër di fa jaay xar mais lu tax yow nga nekk cible bi nga xamante ne tey dañu ñëw dagg sa mbaar. waaw soxna si vraiment loolu jaaxal na ma te jaaxal na ñëpp tamit. parce que ñun liggéey la ñu xam liggéey la ñu gëm yaakaaruñu si kenn xëy daan doole ñàq jëruñu loolu lañu xam bon Médina bi nag fépp foo romb ñu ngi teg ay xar di jaay euh, ba pare euh, def désordre boo xamante ne ñun amul suñu daral ñun ku ñu xam-xam ne dañuy def suñu bâche ba mu rafet sot suñu suuf bon euh, bu ñu paree bu ñu ne suba la bu ñu ko dindee bu ñu leen ne fii lañ doon jaayee xar nga ne déedéet bon riis si leen daan jaayee ñu pavé ko ma dem si Bamba Fall le maire ak moom si kanamu Samba Camara ma ne ko dama buggoon teg lal ba ci kaw pavé bi mu a ma noo mënul nekk réussite bi ah àll yëpp dañ koy tere mais xoola si biir ko bi fu la neex nga teg fa nga jaay sa ay xar daaw ma jaay samay xar def nii ma def nii laa defoon daaw bon ren ma ñëw teg def sama bâche def sama banderole bon pour éviter ndox mi dugg ma wërali ci ay briques ñu ñëw ne ma no brique bi il faut nga dugal ko un mètre may leen amul benn problème dinaa woo mason bi parce que daaw ndox mi daf ma sonaloon ma defoon ay saako mais saako ak euh, euh, wërale sa ay saako ak brique yëpp benn la bon mais comme loolu ngeen wax amul benn problème dinaa dugal brique yi maçon bee ngi ñëw bon ñu ne ma ok loo xam ne nit ki dafa fay alalam plus de cent cinquante mille pour bâche bi nga ñëw jóge fële indi sa paaka jël dagg buum di xëcc ay weñ bu fekkoon sama ay nit wala man mu fekk ma fi man xam naa ne pën na dina wëri mais nag alhamdulilah rabbi alamin ba nga xamee ne fekk ñu fekk fi daal waaw parce que lépp loo gis tamit dafa am yoon dañ koy defee si yoon waa parce que bu dee fit ñun fit dabuñu dañu judduwaale yi fit ñeme nañu mais lépp lu ñuy def tamit dañ koy def si yoon waaw fekk bâche jàmbur ñëw attaqué ko saccagé ko noonu comme ça bon fekkoon tey heureusement dama jékki-jékki rek dem di jëli ay xar yeneen xar nekk si yoon bi di ñëw ñu jot a indi ñaar dem di jëli yeneen yi si lañ ñëw suñu ginnaaw def lii si lañ ma woo si yoon bi wax ma ko bon man leer na ma ne bu fekkoon sama ay nit ñi nga xam ne ñoom laay toogatoo fii kon pënd dina wuri waaw ah, wax dëgg yàlla moom bi ñu takkee fii suñuy xar boog ba léegi ñun fi lañ dëkk te et puis fi lañu juddoo fi lañu yaroo. ñun tamit ay ay ay ay ay ay ndaw Bamba Fall lañ. di liggéey man loolu de li ma gis noonu rafetlu ma ko. yaa ngi dégg di liggéey di ko jàppale parce que moom moo ne jeunesse bi la bëgg a jàppale ñu liggéey kon nag jeunesse bu ñu dee liggéey jàpp naa ne kon ñu leen fekk ci seeni liggéey di leen yàqal. mais na xaw ma nu mu demee parce que mbir su fekkee xamoo nu mu demee da nga cay maanu te bañ cee sori waaw mais jàpp naa ne daal képp kuy liggéey. te lii laps de temps la nekkul éternellement benn 15 jours la rek war nañ ñu mën a bàyyi nit ñi liggéey seen liggéey après bu ñu pare ku nekk tonniwaat sa buntu kër dindiwaat suuf si dindiwaat baas yi bàyyi ko nu mel noonu tout neuf. waaw mais li ma mën a wax daal mooy ñun politique u ñu. waaw am na sax ay ay ay ay ay ay termes yu yu ñaaw saaga yoo xam ne ba ma fekk ma fi nag ba ma ñëwee wax nañ ma ko mais yooyu man man garaawul quoi ay nañ nangam taan bâche bi nañ def nii bâche bi yooyu yëpp am na fi bon gars ñoo ko filmé man fekku ma fi quoi waaw ñun yàgg nañ di liggéey. waaw quoi tey ñu ñëw song song façon bi ful bi ñëw gaare seen oto song dagg bâche yi nga def li ngay def ba pare nag doog a ne amul problème ñëw leen après maire yi ñu ñu ñu waxtaan.